président Macky Sall ci boppam moo indi woon loi boo xam ne bii day tere kenn mën a tas assemblée nationale ci giiru ñaari at loolu mooy indi aussi stabilité ci réew waaye bu fekkee ne réew moo xam ne saa yu président bi yeewoo rek xool kanamu député yi neexu ko mu ne tas naa assemblée ba moo kon kon kañ la ñuy liggéey kañ la ñuy liggéey te loolu xaaruñu ko ci président de la république président li ñuy xaar ci moom tey mooy mu bàyyi ñëpp doon candidat mu fexe ba réew mi dal assemblée nationale assemblée réew mi la ku fa toog ngay opposition wala ngay non inscrit wala ngay euh, euh, Benno Bokk Yaakaar askan bala fu fa yóbbu kon toujours bàyyi leen xel ne vraiment intérêt askan wi ci ngeen war a dox rawatina nag président boo xam ne dans six mois mu pare monsieur le président de la république yow affaire u troisième mandat jeex na waaye bàyyil mandat jàmbur yi c'est pas parce que yow it amoo troisième mandat nga bëgg a nangu mandat wu jàmbur yi mandat wu député yi ñoom ñoo ko moom voilà foqati nga sama bos waaye kooku beneen débat la waaye ñii nag wax dëgg yàlla euh, bàyyi leen seen cinq ans euh, wala en tout cas bu pré beneen président ñëwee fileeg mois de juillet kenn mënuta nangu seen i mandat kon jaraw lak député benno yi ak député opposition yi nga xam ne nanguwu leen loo xam ne kenn waru koo nangu as gor nag doo nangu loo warut a nangu kon ñu ngi leen di félicité di leen kañ di wax président Macky Sall mu génnee vraiment loxoom ci constitution bu muy bëgg a voilà caxat caxatee te dans six mois ci lay dem li ñuy xaar ci moom mooy li ñu wax mooy vraiment mu dalal réew mi génne stress bi nga xam ne permanent bi mu bëgg a dugal réew mi loolu kenn mënu ko nangu. kon ñu ngi féliciter député yi ci wàll woowu te la mu war a def moom xam na ko mooy mu def ko problème yaa ngi fii bari bay bëgg a dee voilà na six mois yi xam ne moo ko dese ci bopp réew mi. mu liggéey lam ca war a liggéey na nanu ko waxee su ma naataangoo yi dinañ ñëw ci yeneen point yi parce que amoon nañ ñetti point ci suñu plateforme bu ko defee vraiment en février mu teg dossier yi dem noppalu waaye affaire constitution article 87 ak xaw ma beneen ban article kooku yoram na watu ci na bàyyi février kii ñëw ba juillet kenn mënta laal assemblée nationale bi euh, bu ko defee ñu xool aussi fan la ñu war a jëmee euh, suñu démocratie waaye lii mu bëggoon a def Euh, vraiment heureusement député yi am nañu fulaak fayda boo xam ne bii nanguwuñu ko ba moom mi ko indi woon da koo mujj retiré loolu li mu koy wan nag mooy euh, daanaka àppam jeex na